damay wax ne corona bi li mënu indil moo gën a metti junniy corona xanaa xamoon ne am na loo xam ne corona moo ko tane waaw am na loo xam ne ne corona ndax ñii ma dégg ñii corona di entraînement di lekk yàpp ak di nangam loolu am na loo ne corona moo ko tane waaw ndax dinga lekk di nga naan di nga tëdd di nga nelaw di nga yeew waaye lii lii lii lii ci topp nii xew ci loolu kenn xamul sëñ bi maa ngi léegi giñal ci yàlla ne am na ñoo xam ne sonn nañ lool am na ay nit ñoo xam ne àgg nañ ci coono foo xam ne duñ ko wax kenn ku yàlla bind jafe-jafe yu réeréer yi xam naa fi ñoo xam ne ab séet rek lañu yóbbu woon ci kasu bi séetal ba noppi yëf ya tëj leen fa nga xam ne séet baa ki toppam ñoom ñëpp borom kër baa leen boole fa séene yor borom kër ba liggéeyam yàqu na mënatul a dellu dugg Dakar amatul séet baa nga toog topp yaa nga toog lépp nga toog xoolal yooyu fam yi nan la ñuy dund yooyu te façon yooyu dafa bari bari waay boo xam ne kenn xamuñu toll dëkk bii nu ne di Touba li fi nekk ci mbooloo ñoo xam ne màggal si leen indi woon mënatuñoo dellu kenn xamuñu toll ñu bari ñoo xam ne mbir mi da leen a fekkan feneen ñu doon dox yeneen i aajo yeneen yitte ñaar nit ñoo wéri di nekk ci dëkk bi te war a génn war a nangam war a nangam loolu lépp yolomal daal la ñuy ñaan aali aali yolomal lañ koy ñaan bu doon semaine bii dañ ciy maye benn bis boo xam ne dañuy limité oto yi ñu jël seeni matuwaay ñu war a génn génn semaine bu ne ñu may ci benn bis képp képp képp loolu day tege ci heure xam nañu senegal li muy yaatu yaatu foo ci daw ay nangami ak dégg loolu ñu def ko ñi war a génn dem julli ji dem julli ji bawal bawal yii ci ndakaaru nag ak saalum saalum yi kajoor kajoor yi ñi nga xam ne ruuj moom bu yàgg la jotoon ci ñoom ndax bi sëñ bi joxee ndigalal ruuj ak mbir mi xewee daa soriwul bu yàgg la jotoon ci ñoom te te séenam ruuj du ay radu ku xam saalum xam ne ngàbb ba radu yi radu yu tolom ku mu xew fa loolu moom suñu wetuk bawal gii la xawatane waaye jëmmi saalum moom daj gas am ngeer gas bu metti ruuj bee gën a metti ci mboolem lu fa béykat di def rek ci ci ci ci tool yi loolu jot ci ñoom sëkk ñu bàyyi ay mag yu màggat yoo xam ne mënu luñu ko seen bopp xale yi nekkan ndakaar di daal seen doole di yónnee ci kër yi liggéeyee yàqu na te mënatuñoo génn loolu lépp daal noo ngi ñaan état mu ci bàyyi xel di ko bàyyi xel baax ndax bàyyi ngi xel loolu dana dana dana dana dimbale askan yu baax baax a baax waaye bu dul loolu ay problème yu gën a rëy corona rek moom moom la askan wi jànkonte wax dëgg fi mu toll